football waaye nag jàpp naa ne war nañu fabriquer ay neuf yu gën a dëgër Sénégal loolu xëy na académie yi war nañ ko xoolaat ba ci coupe d'Afrique gis nañ ko elage manque de neuf qui pénètre waaw manque de neuf il faut ñu am ay attaquant yoo xam na dañuy toj caax régulièrement loolu dafa xaw manqué ci footballu Sénégal waaw mais xëy na coach yi ñu ngi ci xalaat fédération bi militaire bi entraîneur yi surtout il faut que ñuy marqué ay but football nag boo dul marqué mënoo gagné ko kon football bu rafet c' bien football défensif c' est bien mais boo xasee dem tournoi demoo fa pour défendre da nga dem pour gagné donc il faut nga offensif ngay ngay gagné loolu aussi dañ koy tàmbali ci ndaw tout tànk yi commencé di leen entraîner pour que ñu nekk des buteurs des des Messi et cetera loolu c' est dans le dans la